hamdi wa aousubillahi mina shaytan rajim bisimillahi rahmani rahim allahuma bi aqi wajillahi taala alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa salama tasliman asalaamaaleykum yéen mbokk jullit yi rawatina yéen mbokk taalib yi ñuy teewlu saa su nekk seen télé ma fantur bi ci TV ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli sayyidina muhammad rasulullah sangub sang yi di ñaan tey siyaare Serigne Touba Cheikh Sidi Moutar Mbacke fi yàlla bu tànn wér di ko ñaanal Serigne Touba Jëm Fall xalifa maam Cheikh Ibra njaboot Serigne Touba ak Serre Fall mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa daane mbokk taalibe xam nga ne saa su nekk si waxtu bi euh, seen télévision ma faa di bis di leen li nga xam moo di émission ziar daare tey nag ñu defal leen benn bu spécial di ko defal ñi nga xam ak waa is ndax xam nga ñoom dafa lu am soloom ñu ngi koy wàcc moo sabab seen tournée si quartier Dakar yi ñu bàyyi ngeen teewlu kuréel beeg jërë ngeen jëf jaza كما wa Bella ni àndale ba tey di teewlu seen émission spéciale ziar daara yi tey ñu fekk si waa daara li nga xamante ne mooy tournée bi ñuy def de quartier euh, si Dakar yi mi nga xamante ne bokk na si comité scientifique yi euh, Baye Assane bi euh, li nga xam mooy histoire gi Hizbut Tarqiyyah yittewoo bi ak teewaay bi nga xam ne teew ngeen ci barab bi dëgg la Hizbut Tarqiyyah kenn ku ne xam na ne bu njëkk moom lañ doon wax daayira des étudiants mourides Euh, mu sosu woon ci ndigalu sëñ Abdoulaye Mbacké ci année scolaire 1975 1976 waaye dëgg-dëgg lettre bi sëñ Abdoulaye bindoon sax ngir mandargay amuk daara ji ñun gis nañu ci février 1976 la woon kon euh, loolu moo ko sabab euh, muy ànd ak Cheikh Abdoulaye Mbacké nag ci lépp loo xam ne mu ngi ci woon nekk ci wetam di déglu ay ndigalam wéy itam di doon daayira des étudiants murit noonu la àndeek moom ba mu dem euh, daje ji ak Serigne Touba ñu wéy ànd ak euh, Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ci diir bu gàtt bi mu fi def euh, wéy la ko ba ci Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ne moom ci boppam nag le 19 janvier 1992. ci la changé léegi turu daayira des étudiants murid tuddee ko bu Hizbu Tarxiya waaye bu njëkk étudiant murid rek lañ doon wax mu sosoo woon ci université Dakar li ko sos itam euh, gisoon nañ ne barab boobu ñu nekkoon ñoo ñu ko sosoon ndax ñun ñi ci ginnaaw gi rek lañ ñëw doon ay xele tabi ci euh, ñu ngi ci tabi ci 1990 boobu ay élèves lañ waaye mag ña sosoon ñoom lañ ca gisoon mooy gisoon nañ ne barab boobu ñu nekkoon doon jàng xam-xamu àddina euh, manqué woon na leen tuuti seen diine te ñu doonoon ay murit war a xam lislaam war a xam sëñ Touba ñu am yéegoog war a dajaloo loolu nag bi ñu demee ba am ci ndigalu xalif général de Mourides akuk tawax taxawoom akuk yittewoom mu def leen ay niti boppam di leen jàppale di leen taxawu ci li ñu màggale Euh, ba daara ji tey agsi fii nga xam ne bi ñu demee ba ci année 1990 yi nag ni ma la ko waxee ci la euh, commencé am ay cellule ci biir réew mi man mi ci cellule laa laa bokk ndax maa ngi bokkoon ci cellule Fatick ñaaxar nga xam ne kon ci région de Fatick la en 1990 ndax ñu fee nekkoon di ay étudiants ñi dañoo doon ay professeurs génn dem ci région yi fañ dem ñu former fa ay cellules ba noonu lañ continuer bu am siège Touba euh, vers les années 92. ba nga xam ne tey dem nañ ba direction générale Hizbut bi nekk Touba nga xam ne kon ci réew mi ak ci bitim réew fépp foo dem ci réew yi di nga fekk ab cellule Hizbut Tarqiyyah bu fa nekk kon ci tënk daal loolu mooy historique daara ñi mu soso euh, mu mel ni Hizbut Tarqiyyah ñoom xalifa bi Sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal est-ce que mën nga anilaat loolu tuuti si beneen historique bi mel noonu. d'accord loolu boo ko xoolee sax boo xoolee suñu kayit di nga ci gis ne dañ naan organisation la boo xam ne dafa nekk totalement sous les auspices du khalife général des mourides mooy mbooloo la moo xam ne amaana kenn ku ne mën nga am sëriñ kenn ku ne mën nga am kër goo bokk booy attewoo waaye nag bu Tarqiyyah jëmi mbooloom moom day woo ak nekk ci ronu ki nga xam ne mooy xalif généralu Serigne Touba nga xam ne lépp lu mu soxla soxlawoo lépp lu mu yittewoo lépp lu mu digle suba ba ngoon daara ji ci loolu lay dox bi ñu fi dajee itam programme yi génne yëpp day doon ay programme yoo xam ne lu mu gërëm la lu mu digle la te du ñu dugg leen ci loo xam ne eh, joxewu ci ndigal kon yaakaar naa loolu moom Cheikh Abdoulaye ma wax ne ci laa bokk agoon na ci wax ne bu dee mbootaay kenn la ci yéen kon yaakaar naa loolu moom bokkoon na ci kenn ku nekk ci ñoom itam saa bu fi àndeek moom seere nañ ci ñun wax ci ay wax yoo xam ne euh, ba ci ku mujj kii muy Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké bokk na ci mu doon wax sama ñaan bu dee nangu seen lii ci kanam rek la jëm kon yaakaar naa ñooñu ñëpp bokk nañ ci ñoo xam ne euh, safoo nañu li ñuy def te xam nañu itam ñun sëñ Touba lañ fi nekkal moom la ñu liggéeyal la sëñ Saliou seere woon ne seere nañ ne yéen ñi day ànd ngeen ak Serigne Touba loolu mu ngi ko waxoon ci ziar bu ñu defoon ci mat la bul Matlabul Fawzayni ci Touba kon yaakaar naa loolu moom naka jekk ñëpp xam nañ ne daara ji noonu lay doxee. jërëjëf Baye Sène mu mel ne jamono ji yéen a ngi boo xam ne daanaka murid yëpp ñu ngi ko doon xaar ndaxte historique bu njëkk ba xamoon nañ ne loolu daara seen biir daal jamono ñu gis tamit ngeen def ay tournée am solo mun xam tournée boobu la moo ko sabab. jërëjëf sama sëriñ loolu dana ma ci sant bu baax ndax lu mës a am bu amee rek am na lu tax euh, suñu responsable moral fan yi def na benn déclaration sax boo xam ne ñu ngi koy teg ci Al Mouridiyyah TV du ñàkk nañ ko yóbbu ci yeneen télé yi mu ngi ciy wax ni nit ñi dañ ñuy doon accuser ne ñun dañoo réserver wu ñii dañu accuser ne yéen da ngeen isolé wu ñii dañu accuser ne yéen du ngeen communiquer te nee na nag toll nañ foo xam ne ginnaaw dañoo nekk ci li tubaab yi di wax euh, give and muy monde boo xam ne da ngay joxe ñu jox la te ñun ñu yor ku ñu war a jox àddina sépp yor ku ñu war a jox euh, l'islam l'islam jëpp muy sëñ Touba ndax gis nañ ne jafe-jafe yi l'islam am coono yi l'islam am euh, la koy saafara ci moom la nekk ak ci ay jàngaleem Hizbut Tarqiyyah waaj nag ay journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba Dakar mu ngi ko jàpp diggante 15 16 ak 17 juillet ñu am ci ndigal sëriñ bi mu wax ne nañ ko def yëfu lislaam ak yëfu yoonu murit euh, jëwriñam Cheikh Mountakha Mbacké wax ne moo koy jiite porte parole am seen Cheikh Abdou Bass wax ne moom itam ca kanam lay nekk kon loolu doon loo xam ne ndigalu sëñ bi lañ ci am akuk ñaanam akuk rafetloom waaye ay jëwriñam yëpp jekk ci ànd ak ñun ci loolu ñu ne nag ginnaaw loolu mi ngi ñëw te ginnaaw yëfi lislaam la yëfi yoonu murid la kon nañ tàmbale dès à présent di communiquer di génn di wax ak nit ñi di leen ko yegal ndax ñi nga xam ne sax àddina dong lañ yore saa bu ñu amee lu leen ñor dañ ci sonn di dang-dang yi di ci attan cee eh, sonn attan cee xiif attan cee xuloo attan cee xeex te ñu ñu yor dëgg yor lislaam ginnaaw dañ ko jàppal bis yoo xam ne nag eh, dañoo jàpp barab yu gën a taaru ci Ndakaaru ndax centre culturel bu Diamniadio bi ñu defee woon francophonie woote nañ fa premier journée bi képp ku fi nekk ci réew mi ak loo mën a yilif woon nañ la fa ngir bu ñëwee ñu woon leen benn modèle boo xam ne ñëpp buñ ci attewoo jàmm am muy sëñ Touba. biñ fa jógee dinañ def ay grande exposition place du souvenir di leen jàngal sëñ Touba ci làkk yu ne ñu fa jógee ñu woo communauté bépp ci stade Demba Diop kon ñetti fan yooyu nga xam ne dana doon ay fan yu riche. ay fan yu bari ay njëriñ yu mën a jàngale te yoonu murid bépp ànd ko moo tax ñu ne kon jot nañu jóg dem wax ak nit ñi kon génn yi Hizbut Tarqiyyah di génn boo demoon Touba tey noonu lañu def boo demee Kaolack noonu lañ def boo demee Tëngéej noonu lañ def fii Dakar itam ñu ne kon ginnaaw Dakar dafa yaatu te ñetti weer mu ngi suñ kanam te buñ sañoon jullit bu ne dañuy taxaw sa buntu wax la ko muy porte à porte nañ xool ay barab yoo xam ne mbooloo mu bari dañu fa mën a daje ñu jëm ci mbooloo yi invité leen bu ñu ñëwee ginnaaw xasida bokk na ci li boole force murid yi ñu jàng xasida buñ paree ñu joxe message boobu kon message bi rek lañ bëgg a joxe waaye message bi nag balaa ñu koy joxe danañ barkeelu déglu xasida yi euh, jëriñ ci njëriñ yi nekk ci xasida yi bu paree nag ñu woo jullit ñëpp ak ju murid yëpp ak daayira yeeg taalibe yi ne leen ñoo ngi leen di jox rendez-vous 4 15 16 17 juillet ci barab yi ma wax ngir bu ñëwee ñu won euh, àddina sëpp ne leen Sénégal am na modèle boo xam ne li àddina di jooy ak li war a saafara coono àddina ak li wala boole jullit ñi jàpp nañ si ci moom la nekk muy xaadimu rasul kon yaakaar naa loolu tax ñuy génn ñi nga xam ne moom la ñuy bu ñu jógee fi semaine prochaine pikin lañ jëm ñu fa jógee dañuy dem bu ñu fa jógee dinañ dem Dalifort buñ fa jógee dinañ dem Fass Medina. bu buñ fa déggee dinañ dem Yoff dem Wokam dem ci Sicap yi ba université ba mu juddoo woon dañu fa dem laata manifestation yu mag yooyu di am kon yaakaar naa jublu bi ci tënk daal loolu mooy li nga xam ne moo ko moo ko waral. jërëjëf Baye Assane comme ni nga si njeexantal émission bi lan ngay tàggoo ak euh, téléspectateur yu lay teewlu ci Mafaatihul Bichri TV. jërëjëf sama sëriñ loolu moom xanaa sant bu baax te euh, woo ñëpp rek ci xew-xew yooyu ñu xam ne rawatina suñu réew mi ñu nekk réew mu nekk dafa am jëmm ju ñu àtte woo boo demoon tey États-Unis George Washington lañ gëm nga dem euh, Chine am na ku ñu gëm nga dem France am na kuñu gëm muy koo xam daa ni moom la ñuy natt seen lépp Sénégal gi nag sëñ tubaab daj na fi lu ne te lu mu mës a daj xaw mii lay wax sama xeet sëñ Ablaat nee na lu ngeen gis ci réew mi moom la ndax àggoon na ci naan wa kassiran xayraati haazal baladi wa risqahu wa takfiihan nakadi nee na kay ñaan bay ñaanal réew ma nga dëkk nee na ko kon fàttewul kenn ijhal rujuhi ila naa sahadatana mi kenn génnu ci wax ne yàlla defal tukki bi may tukki te mu doon ay coono bu ma delloo ci sama xeet mu doon texe ci ñoom loolu ñëpp a ci bokk kon nag ñoo ngi woo Sénégal gépp ñu xam ne sëñ Touba ñëpp ko bokk sëñ Touba ñëwul fi kenn ñëpp la ñëwal kon réew mi ñëpp dañ ko war a safoo war koo jëriñoo te war koo mën a présenter sëñ indi it message boo xam ne bu ci àddina attewu ak coow yi ñu gis ak jafe-jafe yi lislaam jànkoonte fi ñu toll nii moom jàpp nañ ne modèle am mooy bi nga xam ne moo mën a jàmmal àddina ñu nag loolu lañ bëgg a wane ñoo ngi jégalu bu baax di sant bu baax itam ci yittewoo bi ngeen yittewoo lii te di leen won ne lii moom lu mënta ñàkk la loo xam ne xamaa xamaana waxtoom rek moo jot ñu war ko mën a def yaakaar naa loolu euh, dana doy ci ay kàddu ci ay tagoo ba yeneen i jetaay jërëjëf Pape Assane Diouf mi nga xam ne moo faral si wàllu communauté scientifique jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe li moo doonoon seen spécial émission ziar daara yi te ñu waa daara Hizbut Tarqiyyah si wàccaay bi nga xamante ne moom la ñuy waajal seen journée bi ñu def le 15 17 juillet di si woo ñëpp ndax xam nga jamono yi ñoom euh, ñu ngi def ay sorties au niveau de Dakar ay sorties nationales ndax comme Baye Assane ni mu ko waxee rek euh, Hizbut Tarqiyyah région bu nekk ñu ngi def sortie fa ñu nekkee Dakar nag ñoom ñu ngi say tournée yoo xam daanaka tournée de sensibilisation pour bés bi ñoo ngi sant bu baax ñi nga xam maam ñoo jàpp si liggéey ku mel ni Serigne Ndiaga Seck Saliou ak di sant ba mbokk taalibe yi may teewlu saa su nekk si Mafatihu Bichri TV wasali axbari bi salaami ala nabil Mustafa imami wa qut di yàlla ma maqaamaati rijal bila zuriya bashir ni jàll jërë ngeen الأخير

مددي بخير سير الخلقة بمددي على كل شيء نسير نهدي المالك المكرم المتهدي هذا سيد بالقرآن من ددي نجا بما يلي وخير سددي هذا سيد بالقرآن قال سيد القرآن من الدين جامع يدين خير سجدي حمدي وسوري